ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku takk màgget wala fi ne boo taxanewul ab sedd dana la rey Amadou Ba mi ñu def candidat bu benn Bokk Yaakaar l'Observateur nee nañu ma nga ca waar wa tàmbalee bay pli yéene kay bi petit palais di këru premier ministre bërki démb dafa soppeekoon doon quartier général bu waa Benno Bokk Yaakaar ay responsable yu mag yu nekk ci majorité bi ci ñoom ñu ràññee ci ay cadre yu bokk ci APR ak ay kilifa yu bokk ci cabinet politique bu président Macky Sall ñoo dajewoon ci petit palais muy ci kër premier ministre doon fa def seenu réunion ngir nàmmu seeni ngànnaay nas fa seeni pexe yu ñu mën a attaquer élection présidentielle di Sandiara di Ndiol Bawal Ndonga Ndiaye di Mary ak Mame Boye Diao moom Diao Kolda moomee sox l'Observateur nee nañu am nañuy xibaar yu leen xamal ne jot naa déggante ak Amadou Ba ci téléphone ngir ñu seet nu ñuy def ba gisee ngir toog waxtaan Tribune mel ne ku naan ñu ci xëta mu njëkk ñoom la rek ñoomu nen la ñoom waa APR ñooy gérante ci seen biir candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba bi farandoom yi jàpp ne dafay gagné élection a bi ko ñu bari di xool ci réew mi muy fonctionnaire bu yor ba ci réew moo xam ne ñu bari ci gobar jaasi la dëkke ku lakk mburu tuddub dëkk Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu ne keroog ba muy wax wax na ba pare te tuddul benn yoon turu Ba ca waxam ja honorable député Abdou Mbow bokk ci ñuy jàppal tànk Abdoulaye Daouda Diallo journaliste ko nee na ñu indi na ci tontu lu wex xat Abdou Mbow nee na bi Abdoulaye Daouda Diallo taxawi jël engagement ne dina def di Abdoulaye Daouda Diallo danañu gisee danañu waxtaan wax ji njiit réew wax ci assemblée générale des nations unies ba woon ca New York wax ji mi ngi xëy di riir ci yéen kay yu bari réew mi quotidien bind nañ njiit réew mi na ca ndajam ñàkkom ndox gi am ci Afrique li quotidien nañu li mu bëgg moom président Macky moo di at mu nekk ñu natt lu toll ci fukki junni milliards ak juróom-ñett di ko jàppale réewi Afrique yi ngir ñu tàggoo ak jafe-jafe ndox la si ne kay nañu ci discours démb mbéyit moom président de la république wax na ba tàgguwaale waa organisation des nations unies soleil national ne ko tàggatoo bu daw yaram journal point actu gis na ne moom Macky Sall wéetoon na lool ca nganam ga ca New York waa kër Ousmane Sonko yi wan nañu ko fa biddiw bëccëg te gisul kenn ko ko taxawal kuro Macky ma ko doon jéem gaañ xaw tuuti ñu muraake ko fa Farba mi ñu dénk wàllu mobilisation ak wàllu propagande ca diaspora ba point actu nee nañu defuloon rolam ndax bokkuloon ci ñi àndoon ak président Macky Sall ca New York fot fot tàggalewul mbaam ak noppam faat nañu Pastef Africa Africa Jom Center njiitam di Alioune mi ngi wax ci xët mu njëkk Vox Populi ne mbiri Ousmane Sonko ab bomb la bu ñu war a désamorcer bi kalaate ci jëppal dexkale keroog ba yóbbu fa ay bakkan ak marché Mbàkke bi doon lakk yii mooy journal bi bin xëyee ci xëtamu njëkk lakk ga woon ca marché bu Mbàkke yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne yóbbaale na lu mat juróom-ñetti cantine gaz bi explosif fii ci Ndakaaru yóbbu na ñetti bakkan L'Observateur ne ko ëpp ko ñaari na